dal leen ak jàmm mbokki internet suñu gox tv ginnaaw buñ leen nuyoo bu baax ziar leen dellusiwaat ak yéen nag suñu série famille sénégalaise épisode 100 bande annonce ginnaaw nag bi nga xamante ni Batour nag daal dinañ koy fase waaye Batour nag ku nekk war naa xam ne moom bu ñu ko fase tamit génn këram kër gi nag du yombee noonu ndax Batour capable na te sañ na amul nag lu mu ñëwut a def ba tax na nag Mariétou dikk di wax ak moom ci njekk mu daal di koy jànni loolu doyul maar yu ni ki nga xam ne moom mooy malal ak biige mu ñu leen seen papa ñu leen ko bu fekkee góor la ñu mel ne ak man lépp nag bëgg na gis maar rek ba na bi maar ñëwee di wax ak moom nag mu provoqué ko ngay songu xeex ba gàjj kanamu maar bi mu mel ne nag mareetu ku laal maar rek da nga koy daal di laal ba loolu tax na nag xolam daal di jeex ndax bi muy wax nag ak ki nga xam la mareetu nag dafay lu mësta def nag ndax nag xolam dafa jeex waaye sagar nag moom nee na wàcc gi ñu wàcc bateau donc ko mais maar nag ni mu ko humilier moo ko métti ku nekk nag na ne sagar moom ci côté bateau la mas a far waaye nag ngoone wax na ko ko nee na ko yow sagar ku naa feq nga nag ndax yow doo àtte kon ngeen topp rek suñu chaîne bi di suñu gox TV ñu xaar épisode bi nag incha allah te xam ne nag macha allah dina neex dina yëngu ndax maritu muy xeex rek nag loolu dara du ko dàq kaala kon xaar leen ñu rek suñu gox TV la lépp xewee jërë ngeen jëf.